asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel al azhar touba point com ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen gërëm di rafetloo ti ànd ngeen di ànd ak ñun di gërëm Serigne Thierno fay mi ñu àndal ci wàllu caméra bi ñu koy sant bu baax a baax ci taxawaayam Serigne Soy bu maar ci wàllu infographie yeeg montage yeeg yëpp yu ni mel Serigne Mouhamadou Lamine Touré ci wàllu coordination yi. Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ci lépp loo xamante ne bii ay moyens la ay jumtuwaay ak luy doxal liggéey bi rek moom itam saa su ne mi ngi koy def ngir yeetante ak mbokk yi waaye yaatal njàngaleem lislaam rawatina ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. tey nag ñu am suñu gan goo xam ne mën nañ leen ko bañ a présenté ti ndax jaar na fi ay yoon mu di seriñ seex Thioro Mbacke di sët ci Cheikh Mouhamadou lamin Baara moom Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba kon. gannaaw bu ñu ko dalalee tey rafetlu ak wuy seem ci jataay bi wala nangum ñu nangul teewaayam fii ci jataay bi euh, dañu koy bàyyi dana nuyoo léegi waaye tey ñu tànn thème bu am solo bu ñu war a waxtaanee muy euh, taxawaayu politique ci citoyen bi euh, citoyen bi taxawaay ban la war am ci wàllu politique rawatina ki nga xamante ne bii ak kilifa diine la loolu moom dana ci sañ wax ndax ci la bokk sëriñ bi ñu bàyyi la nga nuyu mbokk yi ñuy seetaan.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 lu ci dëng yi ñu xam ne yéen ji ëpp la. Mhm. Euh, jërëjëf euh, sëñ bi ci nuyoo bu am solo boobu le euh, xam naa tey du nekk jataay bu gudd lool sax waaye ñu mos ci tuuti ay tomb bu laajee ëllëg wala beneen yoon bu la ko jot gi gënee may ndax fi mu ne fekk nañ la ci ay xat-xat ak jàmp jamp yoo xam ne bett na la waaye ñu def benn tënk bu ndaw rek lu jëm ci wàllu politique tey moom la ñuy waxtaanee waaye diggante kilifa diine gi wala citoyen bi ak politique. ndax itam saa su ne coow yu da ciy bëri dañuy dégg kilifa diine gu yëkkati kàddu ñu ne wartoon waxee nii wala kii dafa farfee wala kii dafa kii nii jàngat bu njëkk bi ngay def ci wàllu diggante kilifa diine ak politique. jàngat bi ma ci njëkk a def mooy hmm. kilifa diine ak euh, politique. Hmm. fii ci Sénégal. Hmm. moom ni ñu fi gisee li fi indi coow li mooy. ba léegi dañoo amagul li ñuy wax indépendance. dañ ko amagul suñ bopp dañ koo amagul ci suñ bopp. ci gan fànn. ci fànn yëpp. kilifa diine gi wala taalibe oh, waxuma citoyen bi wala réew mi ci boppam. ci diggante ki kilifa diine gi. Mm-hmm. ba léegi amul indépendance bi mu waroon am. Ah. amu ko. Mm-hmm. Euh, bu dee ñi nga xam seen tamit ñooy nekk di politique. ci mm-hmm. ko ci ci ci ci côté bi ñu nekkee ñoom it. côté boobu it amuñu ci indépendance. ñaari côté yëpp a ci am. parce que loolu li la koy firndeel mooy. su fekkente ne am na ku jóg ci biir kilifa diine gi. jóg bëgg a dugg ci. politique. Mhm. Mhm. pour corriger leen. Mhm. wan leen ne ne ngeen koy defee du nii. dam dam bàyyi leen ma wan leen ni ñu koy defee nan la. naka lañ ko war a defee. su boobaa léegi politiciens yi seen jëm bopp. ñooy ñëw ci kilifa dinañ sàkk ci ñoom ndimbal. ñu wax jëw ji jëmm jéem a arrêté loolu. loolu gis nañ ko fi budul benn du ñaare. kon loolu li muy tegtale kon mooy kilifa diine gi moom ci jëm boom it wul. parce que bu bu indépendant woon. loolu du mën a ne. ndax kon subaa kon kilifa politique yi moom du am lenn lu mu koy digal ci lu mel noonu. Mhm. wala moo ko ciy jëm mhm. loolu moom benn la. kon bu ma déggee avant ngay àggal sax rôle kilifa dina bi sañ naa dégg yëngu-yëngu wala ay xëccoo ci wàllu politique wala luy jëmale réew mi kanam mu dugal ci kàddoom jaare ko ci ñi nga xam ne ñu yëngu ci wàllu politique. waaw ndax. Mhm. kilifa dina gi. loolu moo tax ñu wàcce ko ci kaw suuf. maanaam nekkul ne dañ ko war a doxaloo rek. parce que ñun boo dee xool Sénégal dafa mel ne kilifa dina yi léegi li ñu leen doy pour saayir si moom day mel ne daal léegi ñoom ñoo ko saayir seen bopp. Mm-hmm. baatin bi ñu bàyyi ko kilifa diine yi. Mm-hmm. déet mais te kilifa diine loolu tax koo jóg. Mm-hmm. kilifa diine saayir si ak baatin bi ñaar yëpp a ñaar yëpp a ko war euh, la ñuy defaree lu jëm ëllëg. waaw parce que su fekkente ne boo xoolee ci ku mel ne sëñ sëñ Basiru. amoon amoon na idée bu bien woon ci loolu. parce que bi ñu bi ñu demee ci euh, seen deuxième mouvement bi ñu amoon. ñoom këru diine yëpp ko seexoon ci Sénégal waaw ci Sénégal. bi ñu demee ba euh, ba ñu wàccee député yi ba noppi. Mm-hmm. sëñ Basiru daf ne comme ñun mu ñoo dem. Mm-hmm. di yor réew mi ak di ko jiite gi mel noonu. Mm-hmm. waaye fa ñuy nasee ak a noccee. nañ ñun ba am fa sunu ndaw yoom seen ñoo ñu fay teewal. di saytu la ñuy def. ndax di saytu la ñuy def ndax loolu ah. beneen bi ci des. soo xoolee ku ci ku mel ne sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. Hmm. kon kooku jox na la message ci ne. Hmm. kilifa diine kon nekku ne nii nii ñu dox doxee tey nii rek. Hmm. loolu rek moom moo moo war a nekk seen rôle ci population bi déedéet. am nañ benn rôle ci population bi. parce que bi ñu fi waxee ay ay euh, code de la famille bii nii. ci jamono yu njëkkoon yi kan ma ko gàllankooroon si suñu sax gàllankooroon mu jaral ko mu taal euh, euh, lakk gaz walam dem ci kër kilifa yëpp waxtaan ak ñoom ci loolu leeral leen loolu loolu lan lay jëriñ waaye léegi nag loolu la ko mën a tegtale mooy ñun léegi dañoo jël euh, sunu euh, bu dee ci bu dee ci côté bi. Mhm. dafa dafa mel ne léegi euh, kilifa yu ndaw yi. Mhm. dañu leen a préparé rek ci ay téere ay fiq yeeg xeet mhm. mel noonu bañ maîtriser loolu. mais léegi ba bu dee bu dee ci côté bi benn bi ci des. ci ay njàngum français meeg yu mel noonu. préparé wuñu leen ci bañ am ci yenn bañ am ci yenn niveau yi. te pourtant waroon nañ cee am ay nit ñoo xamante ne si ne tey. ci kër gi la ñu bokk ku mel ne sëñ Moussa mu sëñ Samba Gaynde Fatma. ban diplôme la amul ci xeet yu mel noonu. te est-ce que est-ce que teel na est-ce que teel na koo nekk murit mm-hmm. comme murit bi ñu soxla. Mm-hmm. sëñ mm-hmm. demoon jàngi woon français. kon daal te mën na nekk. mën na nekk parce que am na benn ji jotaay. bu boo ma fi boo ma fi naa la. maanaam wet gu noonu. naka la ñuy fexe maanaam ba nit mën a nekk am murit. ba noppi diplôme yi ñu soxla ci moom yëpp mu am ko. te du yàqu ak murit am dara. loolu bari na fi. bari na man man mën nañ koo am am kay. te boo xoolee tamit fi mu nekk nii tamit. soo demee fu mel ne université Cheikh Cheikh Anta Diop bi ni tey hmm. am na fa ay murid yoo xam si ne sax beneen beneen ndimbal bi ñu doon am sax dëgg-dëgg sax amuñu ko hmm. waaye teewul tey jii seen seen sàkk yi ñuy jël di ko jàngee hmm. parti bi dañuy jël def ko ay carnet yi lépp yi ñu jàngee gi mel noonu parti bi ñu jël ko lépp di ko ay xas ba mu fees dell ñu ŋàbb ko dem euh, euh, nekk ko ko dalay leer nañu ne bis bu demee ba réussir ci njàngam am ci benn niveau bi kooku bis bu dee bis bu ñuy bis bu ñëwee fii it. Mhm. Euh, lenn du nekk ci bu boppam lu liggéey Serigne Touba. waaw beneen bi ci des mooy. Mhm. fu mel ne Sénégal. Mhm. soo xoolee ba ci amul kenn nag. du du du Abdou Diouf. Mm-hmm. du Abdoulaye Wade. Mm-hmm. ba ci Macky Sall mii fi nekk. Mm-hmm. du ci kenn koo xamante ne si ne ñu ñun ñoo ko préparé suñu bopp. ba mu mel ni ñu bëgg ñu jël ko teg ko te te euh, teg ko ci bopp réew mi. du kenn ci ñoom ñooñu. di kenn ku ci nekk ci ñoom dañu dañu laa bàyyi France nasaraan si. ñu préparé la ba nga mel ni nasaraan si bëgg. ñu door la ñu door dañu door laa teg fii nga xam ne ñoom nekkee wuñ fi. ngir na dañoo mel ñun ni ñu bëgg. waaye ñoom dañ fay nekkee ñoom ngir na dañoo mel ni nasaraan si bëgg. waaye est-ce que nekk fi njiitu réew ci Afrique. Euh, rawatina Sénégal gi ñu nekk tey di ko waxtaanee te lëkkaloo ak euh, France Amérique est-ce que loolu dina yomb. xam ah, man naa nekk wala ñu wala réew moo xam ne ñu amuñu fa carte li li li war a mën a ne. Hmm. loolu. Hmm. maanaam ñun sa hmm. Sénégal. dafa waroon di développer sans français yi. Sénégal dafa waroon di développer sans anglais yi. mais léegi Abdoulaye Wade ku ne xam ne ne jamono bi mu fi bàyyee français yi ak mel noonu. am ak problème ak source bu sax xel mel noonu mm-hmm. ku ne xam ne ne jaay jamono boobu li mu mënoon a am tey ci xaalis mm-hmm. mënu koon a am ci jaay jamono bu njëkk ba mm-hmm. te loolu lan moo ko mayoon dafa demoon ci naari xamal leen ne ñun ñun bu dee ci mbokk ñu gën a jege ndax yéen lañ bokkal diine nangam ak nangam convaincre leen ci loolu ba lu soxla ci xaalis lu soxla ci alal ñooñu mën ko yëkkati mën ñooñu indi jox ko duñu def ko ci réew mi kon ñun naka Mm-hmm. waaye léegi ñun suñu maam yi avant France. Mm-hmm. ñoom nu ñu doon dundee. Mm-hmm. Ah, su suñu maam yi avant euh, avant Amérique ñoom nu ñu doon dundee. te au contraire ñoom ñooy sukkandiku ci ñun ngir développé waaye ñun duñ sukkandiku ci ñoom mukk ngir développé ñun ba ilaa yi mu diin nag. du ma saa ci ban fànn la ñuy sukkandikoo ci ñun. ci ban fànn la ñuy sukkandikoo ci mm. euh, dañuy exploité daal nga. est-ce que xam nga est-ce que mm. xam nga est-ce que xam nga waa ji ñuy wax Christophe Colombo. nga xam ne moom moo trouvé woon. au niveau du monde lañ ko tuddee ci ci ci moment yooyu. 14e mm-hmm. siècle la woon yaakaar. voilà mm-hmm. léegi Christophe Christophe Colombo moom bi mu dellusee Europe. Mm-hmm. parce que ku xam ne ne Espagne a déparé woon. waaye ku ne gis na ne européens yi seen jëm bopp dañoo mujjoon euh, pour ñu tabax Amérique. ay dañoo mujjoon ñëw ñëw ñëw Afrique ay nègre ñoo ko doon tabax. ba fi mu ne nii soo àggee ña fa ña fa gën a puissant gën faa gën faa xereñ ëpp fa doole ay nègre lañ. ñooñu fan lañ jógee fu fu fu fu ci suñu réew yi. Hmm? amul fii kenn ko am si ne sama am ci ñooña mm-hmm. mais kon léegi ñu ñoom seen première développement seen mm-hmm. première jéego bi ñu ko seqi pour développer rek mm-hmm. ñun ñoo ko ñu leen ko may parce que européens yi ci jamono boobu pour ñoom ñu am xaalis. Mhm. dama la ko indi étape par étape. Mhm. ci jamono boobu pour ñoom ñoom ñoom ñu am xaalis. Mhm. européens yi lañ bàyyi la woon lañ bàyyi woon euh, commercial esclavage bi. waaw ñoom ñoo doon ñëw fii waaw ñoom ñoo doon ñoom ñoo doon jël ñoom ñoo doon européens yi ñoo doon ñëw ñëw jël neegar yi. yóbbu leen Amérique ci ay indien ñoo fi nekkoon di leen jaay indien yi. pour ñoom ñu leen di jël def leen comme ay jaam di leen utiliser. dégg nga wax bi. Mm-hmm. nañ ba indien yooyu sax dem dem ba bëgg génn ci loolu parce que mm-hmm. turu Libéria gii looloo ko indi. Mm-hmm. ñoom ñoo dem ba jënd foofu jënd foofu foofu foofu suuf. jëlee foofu ay nègre indi leen foofu. pour wane ne dañu leen libéré. libéré googu moo indi turu Libéria bi. mais léegi. beneen bu boobu su jàllee. fàttalikul tuuti sa ginnaaw. Mm-hmm. France. Mm-hmm. bi mu ñuy imposé arachide bi bi mu ñuy imposé pour ñu bay gerte lan lan moo waraloon loolu. Mm-hmm. demoon nañ ba amoon ba dem nañ ba am ay jafe-jafe. ci ci wàllu euh, olive beeg gi mel noonu ci waa waa wàllu diwlin. ñoom xam nañ ne léegi africain yi ñu ngi tàmbalee yow amatuñ benn système bu ñu mën a amee xaalis ci Afrique. ñu ne comme nañ leen imposé gerte gi léegi ñu koy bay. ñu koy jënd di ko di ko yóbbu. problème ge ge gerte googu. moom moo fi indi woon semaine de fer bi ak yeneen ak yeneen. léegi kon loolu yëpp Mm. ay tegtal la kon yu lay wan ne la. Mm. ñoom ñun ñoo leen di dimbali pour ñoom ñu développé. Mm. waaye ñoom dimbali pour ñun ñu développé. ba ci jamono jii ngay dund. xoolal société yi fi nekk yi lu ci mel ne orange ñen ñoo ko moom. français lu ci mel ne total. ñeen ñoo ko moom ak yeneen ak yeneen si ne ay sel. loolu yëpp du benn Sénégalais moom ko amuñu ci dara moomuñu ci dara. waaw loolu ci wàllu exploitation bi la. kom diggante nan lañ mën a def ba mucc ci euh, waa Occident bi. ndax eh, président bi mën na demal boppam ci biir réewum Sénégal yilif réew mi di dund eh, sans pour autant muy jëflante ak ñoom peut-être mooy li nga wax ak nan la ñuy former ab président boo xam ne dañ koy former ci ni muy dooree ba ci ni muy matee nekk président de la ñu teg ko ngir mu mën a joyanti réew mi ci anam yi nga xam ne moom lañ bëgg dëppale ko ak suñuy sart wala suñu aada ak suñu cosaan waaye ñu dellusiwaat ci li ñu doon wax léegi eh, ci wàllu diggante politique bi ak kilifa diine gi. wax nga indépendance bi nga xamante ni bii peut-être euh, kilifa diine gi amu ko euh, pour mën a ndax xëy na da ngay wax yenn saa yi ñu ne kilifa gi warta wax lu ñoom ci kurus yi lañ waree wala nangam ak nangam mooy li nga wax ne rafetlu ko ndax itam donte citoyen la sax war naa mën a am xalaat wala kilifteef goo xam ne dana ko war a mën a wane ngir jubantiwaat réew mi waaye ci kaw indépendance bi nga xam ne euh, woy politique bi amu ko mooy lan. indépendance bi nga xam ne woy politique bi amu ko. Hmm. mooy nit ci politique yi. maanaam loolu li la ciy jox firnde mooy. Hmm. Euh, dañoo wax ne benn président lañ am boo xamante ne si na xëy na. man hmm. euh, euh, man nañ mën nañ ko tuddee cent pour cent africaine. muy président actuel bii nii. mais fàttalikul keroog élection yi mujj yi. Hmm. seetaanal image yooyu. Hmm. ñan la nekkaloon ci environnement bi ci hôtel boobu mu nekkoon keroog doon chiffre doon hmm. chiffre résultat yi. ay ay nasaraan la fa nekkaloon. Ah? bi mu demee tey ba am problème. Euh, problème xaalis wax ne ay deux cent milliards ak nangam ak extra xeexee mel noonu. Mhm. fan la demoon France la demoon. Mhm. beneen bi ci des bu bu bu bu yàggul bii ñuy wax mhm. affaire sa sa sar Charlie Hebdo. président Sénégal 95 pour cent des musulmans lu mu koy wuti ci manifestation yu mel noonu. mais loolu aussi bi ñu ko hmm? jàngatee. tam uh-huh. attention dafa am lu ma ci gën a soofaat. mooy démb xam ma barki démb laa déglu benn ostaas. ostaas bu mag bu siiw fii ci dëkk bi. mu wax ne moom. sosoon na daalam dem ba ci euh, président bi waaye président bi wax na ko ne loolu su ma ko defoon. Hmm. am na lu war a xew loo xam si su xewee. Hmm. Sénégal mën na am problème. te ba hmm. ñoom duñ kii. mais ñun lu suñu yoon ci loolu. ñun waaw ah, mooy loolu foofu laa. est-ce que moom li ñuy wax relation diggante réew ak réew. non euh, maanaam ñu ne na xar nga jaale ji leen. wala ñu déedéet ñun loola ñoom ñoom la ñu def. dañoo sequt ak ñoom lu ñu leen di jaale. ñoom dañoo wan ne ñu ba tey ñun ñoom ñooñu moom. waaw. parce que ñun ay musulman lañ. Mhm. ñoo ñu jóg dal ci suñ kaw wax wax wax sunu yonent bi ñu gën a fonk lu leen mhm. neex. Mhm. ñu waroon a jóg wax ak ñoom la ci yàlla lépp lu ñu def ko. defuñu ko ñoom ñu jóg ànd français yi di naqarlu français yi yañ rey ca ñooñu. te ñooñu duñ duñ ay jullit duñ ay catholique duñ du kenn xam. parce que dañoo wax ne bokkuñu ci benn diine. léegi loolu kon firnde la ci ne. ñoom euh, euh, firnde la kon ci ci ñun ne. amaguñ indépendance boobu ba léegi. beneen bi ci des leen mooy. képp koo xam ne. Euh, jóg nga. Mhm. am benn plan boo teg. Mhm. boo am si ne plan boobu. Mhm. dañ ko war a teg pour plan boobu war a développer euh, euh, euh, Sénégal. ba ci plan émergent bii nii. ñaata milliards la la président bi fay. ay français pour ñu pour ñëw saytu loolu. ndax ndax loolu jaadu na. beneen bi ci des koo xamante ne si ne dañ koo rey. fii ci université Cheikh Anta Diop. Mm-hmm. du ñu jëlee ci ab français fële ngir mu ñëw def enquête test ci bal bi ko rey fan la war a jógee mel noonu. Mm-hmm. pour lan ñun suñu université bi ñu am. depuis mm-hmm. ñaata année mu am ko ba léegi mu mënul former ku mel noonu. kon loolu li muy teg teg teg teg tegtale kon mooy ñun ba léegi dañoo gëmagul suñu bopp. ba léegi ñun dañu dañoo xamagul ñun li ñu doon mën naa am waxuñu ne sax loolu lañ jublu mais sama xalaat man naa am ñu def ko ngir euh, peut-être wane ne. atte nañ ko ci ak maandu ndax xëy na bu ko doomi réew mi defoon mën nañu ne kii dafa faral état bi wala dafa lii wala est-ce que gisoon ne gis nga non non man hmm. gisuma loolu parce que beneen bi doo dem Arabie Saoudite bañ am problème yu mel noonu hmm. dem France wala dem Amérique di fa jëlee ku leen ko defal hmm. ñoom français tamit amul dañu dañu dañu soxla ñun problème bi kay da war a wax ne kon fi mu dese kay mooy ñun est-ce que ñun pare wuñ pour ñu xoolaat suñu bopp ñun ñooy ñan ak ñun ci ban monde lañ nekk ak ñun jamono ji ñuy dund jamono yi lu mu doon jamonoy lan la. Mm-hmm. Euh, fii Sénégal. Mm-hmm. ku ne xam na ne euh, ci bi ñu koy sos. man mm-hmm. ngaa wax ne daanaka moog euh, daara yi ñoo àndoon. léegi ñu daal di dindi organisation boobu. indi ñu benn indil ñu benn organisation. si système bi ñu indil. musu musoo toog benn un mois boo déggul mu am problème. te ay jàngat boobu aussi mel na ne imposé wuñ ko nag sëñ bi maanaam waxuñu ne par force ni ko olof yi wax la obligatoirement maanaam. ala kulli xaal daal falaa buddal yi dañ ci dañ koy def. maanaam waxoon ñu waxoon ñu génne woon génne woon sax loolu ci seen. làmmiñ dafa ne dañ leen ko proposé rek. maanaam mm-hmm. génne woon ci seen làmmiñ ne mm-hmm. far la force xale bi dafa war a jàng français. Mm-hmm. moo tane sax ñun ni ñu def. ndax benn yow soo amee sa daara sa doom bi war a jël sa sa doom bi war a dem jàng jàng alxuraan. lan la état seq ak moom lan. du du ci maître du ci maître bi koy jàngal. Mm-hmm. du ci classe bi muy toog di ko jàngee. Mm-hmm. du ci moom élève bi. du ci mm-hmm. yére bi mu sol du ci daal bi mu sol. waaye loolu tamit wax nañ ne sëriñ daara li ci ëpp man dama ko daan dégg ci rajo ku mel ne yow ñu dañu laaj seen ax ak seen yelleef. ñoom ñu ne mën nañ leen a dimbali. waaye dimbal mi képp ku nangoo ñëw bokk ci sart yi ñu teg mën ngay am ci ndimbal li. waaw léegi fekkee nag yaakaar naa terewuñu aussi kenn ku bersa daara continuer ñi nga doon. waaw d'accord mais léegi. Mhm. ndax sart yooyu mhm. ñu ñu tegal ndax yooyu moo fa formé woon ko mel ne Serigne Touba ndax sart yooyu moo fa formé woon ko yooyu moo ko formé mhm. kon ñun sart yi ñu formé la loolu nit ñu baax ñooñu ñun kay sart yooyu xanaa la ñu war a indil sa sart yi nga xam ne léegi est-ce que ñooñu tamit xam nga euh, ngi tudd léegi kilifa kilifa yi moom duñ sukkandiku ci état amul dara luñ ciy séentu waaw

li tax li tax état boobu. Mhm. ñun du ñu mhm. soxla mu tegal ñu sart yooyu. Mhm. li waral li tax ñu duñu ko tegal la la bëgg xam ko mooy. constitution bi ñu am nga xam ne moom moom la suñu état di doxee. ña ko ña ko defaree ca Bordeaux. ba ca France fa lañ ko defaree indil ñu ko. waaye léegi ndax ñun ak ñoom mën nañu bokk ay idée. ndax ñu ne ñoom bokk nañ temps bokk nañ jamono ju ju ñuy dund. Mm-hmm. ndax bokk nañ ay environnement. Mm-hmm. ndax bokk nañ ay nit. Mm-hmm. ñu indil ñu constitution boobu indil ñu ko te tegal ñu ko. ki nga xamante ne seen tamit moom ba mu juddoo. ba bi mu amee 40 ans. ba bi mu nekk président de la république. mosul jaay jaay ci daara alxuraan. kooku naka lay organiser daara daara ji aw yoon. wu mu mën a jaar pour pour mën jaa dox. naka naka la ko la ko koy organiser le beneen bi ci des mooy su fekkoon ne tey nitu daara gi dafa ñëw soxla audience. ki nekkoon ci université bi ñoo ñoo soxla audience. ki nekkoon ci université bi la ñu njëkk recevoir ci ci ci ci ki ci des. ah. te beneen bi ci des leneen li ma ci gën a soof mooy. génn nañ kilifa di diine yi ci fànn yooyu. ba noppi wëlbatikuwaat. Mhm. problème bu ñu am ci kilifa diine yi lañ koy lañ koy lañ koy lijjantisee. Mhm. kon loolu mooy li ma wax ne la kon kilifa diine yi kon indépendant wul. Mhm. moom daal sañ nañ koo lijjantiloo. waaye nag sañ ñu ko defloo. waaw sañ ñu ko defloo sañ ñu ko dindiloo. waaye nag su problème bu problème amee daal. bu sa sañ nañ koo woo. bu rëbee ba rëb. waaw ñu yaakaar ko ci. kon léegi ñun léegi ñun ban ban ban monde lañu nekk. kon nañ xoolaat suñu bopp. na ngeen tey waroon naa fekk te ñu naan général Mbacke. waaw ci armée ba. yow loolu mooy sa gëm-gëm. waaw <laughs> dafa dafa dafa war a am. <laughs> armée ba nga dem fa fekk fa ñoo xam si ne ke lañ sant. Uh-huh. xam xam la fay xew lu mu doon. Uh-huh. dégg nga est-ce leen lu dàq loolu lu dàq armée. déedéet xam nga am nañ lu li ñu am moo dàq armée. <laughs> Uh-huh. waaye ñun suñu mbir. dafa yemul ci plan. spirituel bi rek. dégg nga wax bi. xam naa fi nga voilà. temporel ak spirituel. benn mënu ci dem bàyyi morom ji. kon ñun bu ñun bu ñoo ñëw rek. daanaka kon dañoo sooy si daal spirituel bi rek. nañ ko doxal suñu yoon nekkul ci lee. te te yow sa yoon nekku ca te saa saa saa bu ca problème amee yow la ñu nga àtte mm-hmm. la preuve mooy Abdoulaye Wade bi bi mu bëggee mm-hmm. mm-hmm. ah, moo tax kon léegi ñuy doyee sëriñ si loolu te doyu doy si pour hmm? des xool bi mu fekkee si seet seeti Mozart kër ngaan na lu mu ko wax ne ko nang ma ñaanal waaye li ci des nag problème politique la naa ko gérer kon loolu li li mu tekki mooy kon yéen daal lii rek lii rek lañ leen di mhm. waaye problème bi moom yéen seen seen yoon bu mu ci mhm. ñoom ñoo ñoom ñoo cay mhm. ah? ñoom seen sax dañuy am problème xaalis ñëw lijjanti ko lijjanti ko fii parce que am na am président boobu boo fi dégg ñëw lebal fi seen saa nangami milliard fan la ko fayee moo ak kan moo gis document yi wane ne loolu fay nañ ko nangam ak nangam nga gis Cheikh Sidi Mokhtar un milliard joxe ko beneen ba ci des am na benn français bu ñu di seetaan di seetaan sëñ sëñ sëñ Mourtada. Mm-hmm. bi pare daan na leen mais sëriñ bi toogoon fii ñu ne ko ah leen moom lan la gérer ci état bi. Mm-hmm. ñu ne ko état bi ñu ne ko ah leen dara. mu ne leen noonu mais yéen ki nga xamante ne seen tey bu laajee nit ñi yëkkati xaalis jox ko. mais ki kii ma waroon nekk ministre de finance. ki ma ko waroon a doon. ah ginnaaw moom su laajee ñi jox ko beneen des mooy fàttali ko ay at ci ginnaaw mhm. tubaab yi ba am problème impôt ci kan lañ mhm. dikk pour mu jaay jàppale ci ci seen ci mhm. ànd ko ànd ko xol euh, euh, ñu am suñ ne bàyyi ñu bàyyi buñ def leen ñu def kon naa kon ñoo gën a yellu kon ci fee ci ñi <laughs> waaw léegi waaw ginnaaw kee nekk su uh-huh. waxee uh-huh. am Cheikh Mbacke taxaw fee ne ko li nga wax amul uh-huh. te ki nekk fii bu waxee amul kenn ku taxaw ne ko amul kon kay ki nekk fii moo gën a yàlla ca kii moo eh, xam naa loolu sax dina laaj beneen eh, sara bu gën yaatu maanaam ay détails ñu développé ko hmm. ndax xam naa comme ni nga ko waxoon léegi dafa am loo ñu waxoon ci ay simili ne moo jàppandi ndax am na xëy na yeneen yi teyu la dab hmm. ba tax na daanaka waxtu ñu waxoon tamit jot na bari na loo xam ne xëy na dañ ko faram-fàccee ndax ki kilifa diine yi wala kilifa diine gi nga tudd léegi muy xalifa général des mourides bokk ci ñi nga xam ne ñoo teg fee njiitu réew mi yu mel noonu yooyu yëpp danañ ci dikkaat waaye ñu bàyyi la nga tëj eh, ndax waxtu yi nga waxoon agsi nañ ci. waaw mhm. moom daal. Mhm. lépp dañ cee mhm. jublu ak leeral. ndax. mbir yi kat boo ci bokkee. te muy muy muy ab xeex te xeex bi fekkee woo. da fekkee. da ngaa fekk da bokk ci xeex bi. Mhm. soo amul dooley dóor comme ni ma ko waxee. war mhm. xanaa war a mën a am dooley matt. Mhm. loolu moo ñu ci dugal. su ko defee léegi ñun ñu duñu noonu. te xam ne mbir yi daal war na jot ñu changé. jot na ñu toog waxtaanaat. ci suñu biir ñun ñu am si ne. Euh, euh, spirituel bi ñun ñu ñoo jot na nag nag ñu ñu def ay nag ay daje ak ay gisee ci sunu biir ngir di xam ñun naka la ñuy tënkee ak bunt yi ñuy potoxlu diñu diñu ci jaar ak système bi ñuy bi ñuy monopoliser. Mhm. ba liñ bëgg ci ñun ñu ñu ba ñun liñ bëgg ci ñun. Mhm. ñoom ñu di ko am. Mhm. ñun ñu seet euh, xool ba xam nu ñu def loolu daal. nu ñu nëbbee buntu yooyu daal. waaw waaw loolu daal jot na daal. Euh, baax na danañ ci kon ñu koy sant bu baax Serigne Cheikh Thioro Mbacke di sët ci Cheikh Mamadou Lamine Bara mu Serigne Touba Bamba di gërëm Serigne Thierno Faye di gërëm mbokk yëpp. Euh, di leen sant bu baax a baax di leen xamal ne xëy na xataay waxtu wi ak yitte yu mu nekk moom mi moo tax waaye danañ gën a yaatal surtout ci fan yi di ñëw ci yeneen jataay yoo xamante ne bi daañu ko seq ak moom leen sant bu baax di leen gërëm di leen dig daje ëllëg ci beneen jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.